ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa Sénégal ñëpp eh, di nuyu askan wi di nuyu këru kilifa diine yi kilifa aada yi eh, di nuyu presse bi yëpp eh, di leen ñaanal jàmm di ñaanal sama kilifa yi màndal nekk ci sama ginnaaw nii donc di nuyu askan wi c'est mhm. gannaaw euh, ci waaw mais sant yàlla rek sant yàlla xam nga jàmm moom sabab rek nga mën euh, ba pare rawatina ñuy ay taalibe Serigne Touba donc loolu day wane ne que yow am nga cër ci yoonu mburit cër wi mooy maanaam ay taalibe lañ euh, tey it ñu gëm na ne que wax dëgg yàlla. am na lu ñu Serigne Touba defal et moo tax tey jii bés bi bésu contente la quoi dama content trop. waaw mais difficulté moom du ñàkk mais man dama nekk nit boo xam ne du ma ragal donc euh, Kaolack laa dëkk yoroo quartier bi ñuy wax Ndar gu ndaw et mooy doomu Saalum Saalum nag doomu Siin ak Saalum ak Bawol te àdduna moom ku yàlla dimbale rek moo fi nekk ñun ñëpp ay jeunes lañ. c'est comme yéen ni ngeen di yoree seen i site ah wala ngeen yor leneen lu dul site xam nga donc da lay wóor na ne que tey jii da gëm seen bopp et heure bi mënoon na leen fekk ngeen di def naka su dul noonu mais da ngeen am gëm-gëm maanaam am maanaam xam na ne que yéen yéenay dooni njiitu réew ëllëg parce que on sait jamais adduna moom pour man je pense que kenn ku ci nekk danga war a gëm li ngay def soo gëmee li ngay def yàlla day ànd ak yow et man yaakaar naa ne donc liñu taxawal du man ko koy doxal xam nga mën na def rek sumay kilifa ku melni Ablaye sek mu ngi ni taxaw sama wet moy sama mak, moy directeur donc euh, ak ñom Sofia ñom Omar ñom équipe bi mënuma ko am ñoom Dundiaye xam nga donc euh, ku ci nek di ci am ay idée ñu am sens aussi tamit di wax ak suñu kilifa suñu mag yu bax ñi nga xam ne partout ci aduna bi dem nañ fa organiser nañ def nañ lu ne donc amul lu len jaaxal ci wàllu li ñu nekk muy culture peut ñoom xam nañ sax ñun li ñu xamul donc tey jii sant yàlla mënul weesu bés bi tey ñoom ñu bàyyi seen kër yi ah, bàyyi seen yite yi ñu ñëw ñu santandoor sant sëñ Tuubaa wér xam nga donc ñaan jàng xasida sëñ Tuubaa yi am suñu benn rakk joo xam ne suñu jarbaat aussi mu tombee mu génn àdduna barki démb donc muy Elimaan donc yàlla ko suñu borom ah, xare àjjana donc moo war a gën a sax tey defuñu benn yëngu-yëngu bu jëm ci côté culture euh, vraiment lu dul ñaanal ko ànd ak euh, naqar ak ak fameem xam nga donc euh, voilà quoi donc li ci des mooy liggéey liggéey soo ñaqee ku ñaq rek jariñu maanaam ñun liggéey rek moo ñu war amuñu droit def erreur e li ngeen di def nii yéen yéen a ngi def seen liggéey man maa ngi def sama liggéey keneen a ngi def liggéeyam mais nag ci biir liggéey bi mooy lépp lu ñu war a am yalla fek mu nek li gën ci ñun pour mën ko bokk ak jaam yàlla yëpp donc motax tay mom moom su tay bi mom dama kontaan quoi. wa mais xam nga sante yalla d'abord moy studio bi ya ka des grands musiciens ñoo fiy jàll ñoo fi ñëw ñëwuñ fii pour bakan mais dañ fee ñew pour qualité bu ñuy soxla parce que yalla dimbalé nañu ñun aussi tamit à l'âge de 18 ans am nañ sens façon studio bu ne ci monde bi dem nañ fa xam nañ qualité quoi ñu fu ñuy jouer musique pour manam tégal nit ñi lu leen tankal dedet déedéet tollu fi nga xam ne ne manam da ngay won nit ñi un bon exemple Lui pour lui continuer Madame, sant à la wessu Album Pape Diouf bu bees bi muy def ni fi la ko et Sidi Job <laughs> actuellement mu ngi def foyer flam fi la ko Bastion Bass mu ngi def foyer flam fi la ko yaa ay ñoom góor gi Njaay yaa ñoom Ngoone Njaay géwél xam nga Thiat Seck ah, ah Ibra Naajo donc pas mal daal mënuma sax lim ñi fi jaar ñëpp donc je pense que ne que tey jii ñu fi ñëw euh, dañ fee fekk qualité bu baax donc ci biir qualité bi aussi tamit ñuy partager ak sunu mbokk artistes ñi ñëw ak ñi ñëwagut bon ñi ñëwagut aussi tamit peut-être yàlla moo dogal que ñëwaguñu egseeguñ ci studio bi

sen très sérieusement buguma aussi tamit dingatuma waxuma kenn ku koy def mais dama ne par exemple scène bi ma j'ai toujours ak samay kilifa yi fi ne buguma def ben chaîne bo pour buzz la manam di xaawi sutura doomu adama wala wax doomu adama luma ko wara non demeewu ma noonu donc damay ñaan yalla aussi tamit dama am njabot te samay njabot tay dañoo wara jël ci man un bon exemple buguma kuma saga sama njabot diko ko dégg bugguma ku wax ci naka sudul noonu sama njaboot di ko dégg moo tax dama naan dañoo war di dugal lu positif kese lu jaar yoon ci biir scène bi moo tax tey sant yàlla mënul weesu tey def nañ presque plus de 2 millions donc loolu ci un an sant yàlla la et ñi ko war a seetaan ñu koy seetaan bon sama yeneen naataangoo site yi tamit ñi yor seen sit internet léeg ma tukki ubbi seen page xool lu seen liggéey bari na ci ñoo xam ne da ngay rafetlu seen liggéey parce que xam nañ exactement liggéey bi fi mu leen war a mën a yóbbu parce que su dee fii la rek lu ndaw la lam li ma naan journaliste il faut ñu respecter ko parce que rôle journaliste dafa nekk loo xam ne maanaam pour man dafa bari personne personnalité la waaw mu ngi mel ni ñu ne diw ne dafa am personnalité journal noonu la war a mel un journaliste da nga war a am personnalité kenn warul a gis yàpp la kenn warul la wax lu mu la war wax donc may ñaax sunu mbo sama mbokk yi nga xam ne ne à dehors de Jërë Jërë TV donc euh, ñu gën a rafetal liggéey bi ñu gën a bañ et si ñu gën a xam ne ne que ñoom ay noble lañ ay noble lañ parce que liggéey bi ñuy def nit ki bëgg li ngay def àdduna bi xam ko <laughs> ñëpp di la suivre mais quand même yow nit boobu da war a joxe un bon exemple donc un bon exemple bi ci yow la war a njëkkee donc moo tax may wax ne san suñu mbokk yi daal donc ci côté site yi côté pele yi nañ gën a góorgóorlu ci côté waaw <laughs> bon suba teel ki ko moom sama rak la Matar Diop suba teel maa ko dugal ci musique moo ma doon ménager sama rak la ay déggoo ñi ma lim léegi ay artistes am lañ fii lañ ñëwee enregistré man studio de enregistrement laa yor maa ngi ak label de production mais label de production moy manam déggoo ma la dama ubbil ñëpp porte yi xam nga duma dox ci lu ñaaw duma wax lu ñaaw duma ma dégg lu ñaaw man bëgguma loolu et subatel kiko mom sama rakk la donc encore une fois sama rakk la ñu seqi jàmm mu respecté ma lool ma respecté ko lool donc je pense que duñu ay concurrent donc li ma naan affaire bi ku ne mën nga bay sa waar c'est vrai que concurrent amna ci lo gis dafa soit man mën naa nekk artiste Dieye baaba mii di ma produit suba ma pare baaba Baba Sofia jël ma ma produit ma gannaaw suba ma paree sama doom kii sama doom la kaaw donc <laughs> moom tey jii <laughs> mën naa toog suba mu ubbi label de production am lu ma ci man papa damay def lii maa moom sama studio moom moom studio bi donc mais lépp dañ koy teg ci cadre professionnel je pense que ne ne que côté boobu man euh, dama naan ci biir musique ma yàlla am xaar ma yàlla kenn et ñëpp sumay frère lañ man ñepp ñoo bokk nday ak bay man luma ma gëmul du ko wax man du ma fen du jëw du wax gëmul luma gëm aussi lim lo ne na sama nopp bama ma war ko régler donc attends du ma ben normal nit naan ma toogal ni nii naa sàmba dama koy régler moment bi ngi ko war régler tour tourner ci page donc je pense que Soubatel ak ñun ben la donc ñoo bokk ndey ak bàyyi donc y a aucun problème ay artistes am su may artistes lañ su may rakk lañ donc man aw moom problème boobu ak benn label daal sérieusement bon allemand yi sama producteur la e donc y a cinq 25 passé ñu ngi doon def festival de jazz maanaam xam nga gars yi dañuy tuddee euh, <laughs> lu bëri mbooloo lañuy tuddee lu réussir lu fees dell festival de jazz bi ñu doon def bokk na ci festival de jazz jazz bi gën a rëy ci Allemagne yaaka di ay producteur kese ñoo fa nekkoon ay producteur kese grand xam na li may wax bu baax donc circuit bi loolu la donc le 25 passé ñu ngi woon ci loolu yàlla defal nañu ci le kawe suñu njort et li ma doon def ak ñoom aussi euh, au niveau de Dakar fii Kaolack gi ma dëkk donc ba ci Gambie donc euh, très bientôt bu neexee yàlla Euh, dinañ ko defat parce que ñom d'ici novembre war nañ ñëwaat ak benen équipe bu nekk seen ginnaaw su boba dinañ ko gëna a yaatal askan wi yëpp dinañ ci tek seen ba c'est wa bari na en ce moment là ñu ngi ci bon dafa am sumay natango sumay frère yu ma associé euh, Sénégambia Entertainment ñu ngi Londres euh, donc man jëre jëre ñu ngi fi Dakar dañoo manam niko ko mag ñi di waxee lëkkaloo donc euh, ci liguey bu am solo euh, ci aduna bi pas Afrique kese donc bi ci njëkk moy le 24 décembre le 25 décembre le 26 en Gambie euh, donc ñu avec Pape Diouf donc lool ñu koy waajal benen bi ci teggu moy signé nañ ko pour être clair ak ñëpp ah, signé nañ ko 6 mois ci ginnaw donc Gambie ak euh, Londres petit ci et donc mu ay dates très sérieusement signé nañ ko aussi dates ne maanaam ñu ngi ci ñu ci ñu bon personnellement am lu Berlin pour présentation album bi comme ni ma ko rek album international bi et ñu ngi ci bu mais avec Covid bini.